un défi dans les 24 heures génnal nga wax sénégalais yi ne da ngay criminaliser góor jigéen du def xam parce que moi, punkali que jigéen yi défenseur LGBT yi ñoom ci seen bopp gis ngeen leen ñëw Sénégal Gourni, sol Jipek, Gourni góor ñiy dox di biijoog ñëpp moom Ousmane Sonko dalal na Sénégal je, lui lance un défi. Dans les 24 heures, Ousmane Sonko n'a qu'à sortir et dire aux Sénégalais que de faire criminaliser góor Parce que parce que li tax ñu tax tas assemblée bi góor criminaliser la bokk li tax ñu tas assemblée bi a ko projet pour criminaliser góor jigéen nous avons ñu tout... tas assemblée nationale parce que bëgguñu woon loolu mu jàll tey jii lépp dina leer ana ñi doon wax ne dañuy sàmm jikko yi xaw ma sàmmuñu dara seen bopp lañ doon avons ana ñu il faut que nous arrêtions de nax sénégalais amnistie 86 sénégalais ñoo dé. 86 sénégalais jeunes sénégalais ñoo dee Ousmane Sonko na taxaw jàkkaarloo ak sénégalais yi ne bu jëlee assemblée day dindi amnistie bi du ko mus a dindi man du ma waxantu et moom xam na ne man du ma waxantu moom xam lu ma ko wax lu xeere la dara du ci teg. lancez Nako, lancez Nako, Mom Ousmane Sonko lance Nako ko défi né naa na sénégalais yi ndax am compte bancaire bu nek à l'étranger waaw wala dit lay xaar ndax am compte bancaire bu nek à l'étranger waaw wala déet lay xaar comme réponse même Ousmane Sonko ne publier déclaration de patrimoine Alala. alalam na publier Beaucoup publier loxo dina dar et du coup, publier mais Bassirou Diomaye Faye bi muy dem président présidentiel Mon mot publier déclaration de patrimoine Mon ko publier wala publier ah mais le Ousmane Sonko du publier ba nous avons koy woowee déclaration de patrimoine Ce sénégalais c'est la classe politique ce pays doit être sauvé je vous invite chers compatriotes à